ahlan bikum Amadou Ba candidat Benno Bokk Yaakaar dakkal na campagne am ba ndax njiit réew mi Macky Sall fa ko xoolu daar daar ca Ndakaaru fekk ma nga woon Tiwaawoon bés bi yéene kaay ne Amadou Ba waa APR yi jàppale wuñ ko fañ ko wan ginnaaw te fañ koy jéem a déstabiliser tey jii ma nga waroon a dem ca diwaanu Ndar ak Louga boo moytul fa nar a yàqu bés bi yéene kaay ñu ko xamal Mamour Cissé na yëf yi fa hëpp njiit réew Macky Sall fa war a dakkal Afrique caaxaan caaxaan yii responsable APR yi nekkee ci kaw Amadou Ba lii di wax lii xeeñ mooy njiitu réew Macky Sall mbaa du fa bëgg wax militant yi na leen fi mu toll nii woteel leen Boun Abdallah Dionne ndax Amadou Ba nekkatul suñ candidat enquête yéen a kaay mel ni ku naan man daal Amadou Ba faa ko yërëm fa sonn ndeysaan gars yi fañ koy xeex di ko yàqal regard yéen a kaay ne waaye bi muy bàyyeekoo démb tiwaawoon moom Amadou Ba fa wax mbooloo ma na leen maa ngi dem dafa am lu may lijjanti daar daar ndakaaru waaye fay ñib siwaat tey ci guddi continuer sama campagne bi a na guerre moo dox diggante Amadou Ba ak benn bokk yaakaar fi mu toll nii ah, yaw Sall fa xam ay responsable APR yoo xam ne fa ñoo bugg ñu toxal wote yi moo tax fa ñoo mer ba futtu waaye Amadou Ba moom niñ ko def fi mu ni fa ñaaw comité électoraux yi xajandi nañ ko Amadou Ba ak ay farandooram fañ leen a xaayee ñu amal ndaje ca daluwaayu APR ba démb ñu xoolu ko ca pale ba waaye Amadou Ba nag nee fay continuer campagne bi moo xam waa bennoo jàppale ko wala ñu ñàkk jàppale le quotidien yéen a kaay moom fa mel ni ku naan ndeysaan Amadou a sens bu mujj ñu doxee fi juboo rek wala tàqali ko l'observateur mel ni ko daan leen man de faa foog ne fa nar a juboo gën jege watte Diop si meeru Tiwaawoon ne ah Macky de la mu waxoon mooy ne moom amul plan A amul B amul C amul ba mooy candidat am kon ñun loolu lañ jàpp ma ko waxee ci point actu yi ne kaay Babacar Diouf journaliste la na ko hëy faay wax ak yow gis nga Amadou Ba nekkatut candidat Benno Bokk Yaakaar su yoboo ngeen noppal seen am na ab enregistrement audio bu génn boo xam ne mën naa gën a dox Macky firndeel jàppale Amadou Ba ginnaaw jafe-jafe ya dox seen diggante yéen kaay bi ne man daal faa yaakaar ne jiitaram Macky Sall fay souffler récréation bi ne jeex na caaxaan faaxee yéen ñëpp ñëw leen ci gannaaw Amadou Ba ñu campagnal ko mu jeex li ci kanam nag rawul ay gët leer laneen lu leer ba yegg ca naan ja mooy ne Ousmane Sonko fi mu toll nii jotaat na mbooleem àq ak yelleefam 24 bii mën naa dem wote ji bokk si ñuy a wecc bi yéen kaay na ko fa koo jox kay suukaru koor yaaw seetal état bu Sénégal fa deltu ginnaaw ci pourvoi en cassation bi mu defoon ci coow li doxoon diggante moom ak Sonko ba tax professeur Ahmed Ndiaye ne Sonko kay mën naa voté le 24 bi libération na agence judiciaire de l' état yorom Moussa Diallo nee nañ deltu nañ ginnaaw bàyyi nañ yëfi jeex na te daa nañ ko tegoon ci atte bi doxoon diggante moom Mame Mbaye Niang loolu loi amnistie ba woon source ay yéen kaay mel ni ku naan Sonko yàlla fa sonn yërëm ah koo xam ne état fa xëy jàpp la tëj la kaso tuumal nañ la mbooleem tuuma yu garaaw ñu teg ko sa der xëy rek sang ba nga seet wecc ne bàyyi na lépp jeex na xam ngeen loolu fa métti àllintin ne moo tax fa yaakaar ne ci ay fan yu néew Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye fañ leen di bàyyi ñu génn kaso direct news ne man kay faa xamut njiitaram Macky Sall lan lay gañee ci setal bi ñu setal Ousmane Sonko nii ba mu jotaat ay droit a kaay moo jur ngir jàppale leen keneen kuy jàppale jomaay fay mooy Cheikh Bamba Dièye teral yéen a kaay ñu ko xamal keneen kuy jàppale Bassirou Jomaay Fay te kuñ ko wax doo ko gëm waaye dëgg la du kenn ku may Pape Samba Mboup bi nekkoon PDS léegi bàyyi na Macky bàyyi na Benno mi ngi sàkku ci sénégalais ñu woteel jomaay fay Idrissa Seck moom Khalifa ya ak imaam yu dëkk ca diwaanu Thiès ñoo ko doon dalal Khalifa Sall moom ma nga woon ca diwaanu Mbour ca nappkat ya dig na leen ñoŋal seen nekkin Aly Ngouille Ndiaye mu bari moom moo ko dalal ca bët gànnaaru réew mi teral ko xamal Mame Boye Diawa ma nga woon ca diwaanu fal Cheikh Tidiane Dièye nee na bu ñu ko falee contrat minier yi am Sénégal fañ koy xoolaat 24 heures yéen a kaay ne Déthié Fall moom fa wàccee mbir kilaam ñëpp d'accord nañ ndax mbir kilaam nee na waaw info yéen a kaay na ko laata muy dem Kaffrine Déthié Fall Kaolack ndangaan la dem waaye salte tilim ba am Kaolack ak ñàkk xëy ndaw ña nee na fay firndeel ne njiitiram Macky Sall fa lajj wala fajir yéen a kaay ne Thierno Alassane Sall programme am ci wàllu wér-gi-yaram njàng meeg njàngale mi ak yeneen ma ngi koy leeral ca biir yéen kaay ba la mu leeral moom laas yéen a mooy wàllu emploi ak ndaw ñi gis-gis bi ci Amadou Ba am ak Bassirou Diomaye Faye Boun Abdallah Dionne ak lamin Diallo ma ngi koy wax ca biir yéen kaay ba leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja Karim Wade ak PDS kalaame Cour suprême ngir ñu neenal wote yi fomm ko ndax décret njiitëra Macky Sall bañ attaqué na du yoon yoor yoor yéen kaay nee na Karim Wade ak PDS c'est bon ñu dem fori neew de seen kalaame boobu fenn la du mujj duñ ci am ndam ndax fa xam ñetti juriste boroom xam-xam yi mag ci wàlluk yoon fa ñoo leeral yëf ci biir yéen kaay bi <laughs> tan maître Gomis fa wax ne PDS amul intérêt ngir kalaame yóbbu ca yoon décret bi ndax moom yoonam néewu ci ndax lam attaqué tooñut ko docteur Ibra Faye moom it juriste la nee na jurisprudence bu 17 mars 2016 bi mi ngi fi recours boobu ñu yóbbu ca cour suprême fay lajj du jàll ndax PDS ak ñam àndal Karim Wade bokkuñu ci liste 19 yi nga xam ne ñoom la dogal bi daanu ci seen kaw maanaam PDS su fekkonte ne dafa bokk ci ñu war a dem ci wote yi 19 candidats yi a campagne matu ñaar fukki fan ak campagne boobaa mën naa attaqué professeur Ahmed Ndiaye ne seen recours bi irrecevabilité mooy am ndax ñoom amuñ intérêt ci loolu ñuy attaqué te mbiru code électoral délai beeg yooyu ak processus électoral bi loolu conseil constitutionnel moo ci war a àddu saytu ko ak joxe ci dogal ca 24 heures maître Gomis ne PDS amuñ benn sens ngir seen recours bi jàll ñu am ci ndam déedéet fa ñuy fori neew <laughs> leer leneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy xeex bu métti moo am ca direction ak kilifa yi banque ba ñuy wax CBAO léeg si ko na ko fa xam ñaari syndicaliste yoo xam ne travail ñoo joxe ndigal li ni mel maanaam fañ caa d'accord mooy Aliou Seck ak Mansour Diallo am na keneen ku ñu war a dàqaat sax Le Soleil yéen a kaay moom fa ñoo xamal na xeex jàngoro yi bët réewum Sénégal bay na ci waaru yaatu ci Afrique sow jant bés bi yéen kaay moom fa xëy di àddu ci weeru koor wi nga xam ne ci lañ nekk te marché bi fa naqari fa métti bu fekkee dëgg la lëjum am na waaye wàllu suukar ak yi ni mel kenn mënu koo gis ci dëkk bi ba pare dund gi fa cher te xam nga xoor ba ngoon jot ak mi xoor métier xamoo lekk gu baax goo mën a lekk ak lu saf loo a naan xam nga ne loolu musiba la soxna yi fa ñoo jaaxle kër yi